asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 14 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xatam mu njëkk ñaar xëy tey nekk ca muy ñaar ñoo xam ne ñoo war a bëri muy Bombardier mu fi nekkoon roi des arènes ñaar yoon ak Balla Gaye 2 mi fi nekkoon roi des arènes benn yoon ca yëglikaay ba ka mu njëkk tey moom mooy Bombardier mi nga xam ne xëy na séq ak moom waxtaan bombar Bombardier nag ay bëgg-bëggam daal la xëy tey fesal ko yëglikaay bi di suñu lamb fa la ko waxe moom bombar Bombardier maanaam daal jàpp na ne kii di Balla Gaye 2 moom nekkul ci moom benn obstacle boo obstacle boo xam ne ni lu koy teqatal la wala lu ko jaaxal Bombardier ne na déedéet demewul noonu ne na adversaire la rek boo xam ne ni dama war a defante ak moom te itam jàpp na ne moom Bombardier li nekk cim xelam du Balla gay 2 rek de maanaam moom li mu gëm te gis ko mooy jàpp na ne lii nga xam ne nii moom mooy couronne roi des arènes bi la bëgg a jël pour ñetteelu yoon moom bombar Bombardier daal lii la jàpp ne fi mu nekk nii moom moo di maanaam li mu bëgg waaye pour Balla gay jàpp na ne loolu moom du cas pour moom moom Bombardier lii la gis nee nag su ma nee roi des laa bëgg jëlaat ñetteelu yoon na kon yaakaar naa ne mbiri Balla Gaye moom jéggi naa ko Bombardier moom moo wax lii ci sunu làmb tey ci xët wu njëkk ñëw na ca tamit la nga xam ne ni moom moo di MMA ba Bombardier jàpp na ne li am ba des daal MMA bi fi mu nekk nii moom li mu bëgg daal nekk ci koo xam ne ni daal bi loolu mooy ay waxam jàpp na ne kon daal mois de mai mu ngay waajal combat booba ba tax na sax la ki la nga xam ne moom mooy le 20 février Bombardier nee na nar naa dem fa nga xam ne nii moom moo di ca réewum France lépp bokk na ci daal di préparer la nga xam ne ni moom moo di combat MMA bi nga xam ne am na ko ñëw na tamit ci biirum làmb ji état bi itam Bombardier wax na ak ñoom nee leen daal li du du yoon mooy jël làmb ji bëgg ko aj tëj ko boobu ba tey ñeneen ñi moom di def lañ bëgg a def ñun waa làmb ji ñu mel ni ñun ñooy kumba amut ndey Bombardier nee na lii du aw yoon nee na bokk na ci tey li tax xale yi di jël gaal yi di dem rawatina mbuur ga nga xam ne neen fa la dëkk rawatina ay mbër ya koy def nee na bokk na ci seen làmb ji nga xam ne dañ leen koo tere maanaam tere leen a bëri Bombardier jàpp na ne loolu nag du aw yoon tey suba waxi noppi kon daal gis na li am ba des daal moom Bombardier mooy nañu xool ni ñuy defee ngir que nag ñu mën a bëre la nga xam ne ni moom moo di lamb ji maanaam bu ko defee mbir yi mën a dox Bombardier daal tey xëy na ngar daaju yëglikaay bi di suñu lamb seq waxtaan fu yaatoo yaat la fa seq tey ak ka nga xam ne moom moo di Ibou Bari waaye kam war a bëreel nag di Balla Gaye numéro 2 moom donte itam Bombardier wax na waaye moom ña mu xëy di waxal moom Balla ñenn la état bi daal la xëy xamal ne leen daal li am ba daal li nga xam ne nii moom mooy sama métier moom kenn du ma ko privé maanaam tere ngeen ñu bëgg a tere bëri daal la Balla Gaye de àndul tey suba waxi noppi moo tax nag daal mu nga xëy di wax ak ña nga xam ne nii ñoom ñoo jiite la nga xam ne moom moo di réew mi moom Balla Gaye numéro 2 ba tey mbir mooma ma nga xam ne ne tamit ñu nga ca muy covid ba itam te mu ñëw mittil affaire moo tax yëglikaay bi di sunu làmb xëy nu woon tamit tamit ci biir yëglikaay bi Ama Baldé ak Modou Lo boo xam ne yëglikaay bi nag la mu gis mooy daal ne na mbir ya daal mu ngay gën a compliqué problème ya moom mu ngay gën a métti jëm ci la nga xam ne moom moo di làmb ja ak a bëre ba tey bu ñu la nga xam ne moom moo di làmb ji keneen koo xam ne nii moom adversaire de taille la am muy kalmu Ndour Grand Mbagnick nekk école de Boy Niang yéeg li kaay bi ne daal ñàkk daanum gi mu nekkee ci lamb ji daal tax na amaat na beneen adversaire boo xam ne ni bu doy waar la muy Eumeu Sène Junior yéeg li kaay bi di suñu lamb ba tey moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni wala ñeneen ñoo xam ne nii moom maanaam boole nañ leen muy ñaari xale yoo xam ne ni daal ay espoiru làmb lañ moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal combat de feu mooy am foofu muy ci diggante caatu yaraax ma nga xam ne nii moom moo nekk fa nga xam ne ni askan wa ca yaraax di ab écrit moom moo war a bëre nag ak ka nga xam ne moom moo di zal bawal ma nekk fa nga xam ne moom moo di rëbës yëglikaay bi nag combat ba ko ko monté du kenn ko dul baaba jaw borom caam production les deux moom yëglikaay bi ñëw na ci moom ak carrière am boo xam ne daal fi mu nekk nii polombé la def maanaam na mu war a doxe doxewu ni maanaam metti na lool ci moom ndax nag la ko waral mooy gëj a bëree année xam ne ni teglante na ko yëglikaay bi ne na 2017 daal la les deux gëj nga xam ne ni moom moo di lamb ji bëri moo tax lamb tànn na ay adversaire ngir yoo xam ne jàpp na ne war a laale ak ñoom bokk na ca Malick Niang bu Yoff ama neex bu Tëngéej Yékini Senior bu Grand Médine ne na ñett moom ay adversaire de taille lañu pour que nga xam ne nii moo di ka nga xam ne moo di less 2 ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi dañuy dem record record lañ fay fekki daal bokk na ci écurie Fass ak écurie Ndakaaru ba nga xam ne daal maanaam seenum ànd bokkoo def ko benn écurie daal euh, annoncé nañ ko yëglikaay nekk nii moom loolu day ah na a nekk ndax nag la ko Fass na muy doxee ku ne xam ne ne baaxatul écurie Ndakaaru leader amatu fa moo tax yëglikaay bi ne loolu su amee daal staff technique a des da yëglikaay nekk nii bu ñu yeboo xaar ko boo xam ne ni daal manees na koo xaar tamit muy loo xam ne war na mën a am ngir gën a leeral la nga xam ne moom moo di mbir yooye covid 19 baak ñi nga xam ne ñoom ñooy wàllum simple ba daa ni daal dañ leen a fàtte ci la nga xam ne nii daal moom mooy mbirum a xëy na na jër-jër ci mbirum lamb ci ab waxanteek ma nga xam ne nii daal la mu xamal Balla Gaye numéro 2 guddul gàttul maanaam daal tontu na ko fa nga xam ne wala boog wax na moom fa nga xam ne moo di ca Equivox wax na tamit ak ka nga xam ne moom moo di liiru jaan Lac de Guiers wax na Eumeu Sène wax na mel ni kon daal weekend bii moom safoon na sàpp-sàpp ci biirum làmb ak anniversaire u Balla Gaye numéro 2 ba woon tamit fa nga xam ne moom moo di woon ca Maris te ñépp teew rawatina woykat yaag mbër ya mu la nga xam ne moom moo di écrit loolu yëglikaay yi wala boog bu ñu demee fa nga xam ne moo di ca Equivox moom dañ fay fekk ba tey lu mel ni ki noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ah, revue bi nuyu nañ leen waaw dañ doon naan tuuti. ndox rek café maa ngi lay bëggee xule di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre Equivox ak tamit fa nga xam ne tamit moom moo di Vox Arena di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre amuñu seen fay encore une fois yi ñuy commentaire refi bi di commentaire vidéo yi fu ci waay mën a nekk rek. ci àddina bi bari nañu macha allah ñu ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal yàlla may la doole ak kàttan ak connexion boo mën di topp vidéo yi ndax ku ne xam na ne ah mooy seetaan li nga xam ne moom la ñuy def amuñu seen fay kon yàlla na leen yàlla fay barke yonente bi sallallahu alayhi wa waaw parce que nag koo xamul noo koy def nam la defa tax te ni ngeen ñu def ni ngeen ñuy ñaanale ni ngeen ñuy conseil bu ngeen gisee erreur ci ñun signalé ñu ko su ngeen gisee lu baax wax ñu ñu gën ko continuer defe naa ku lay defal lool rek defe naa ni bëggul sa maanaam sa sa sab tool booy kon defe naa ne ah dompat sax ci sot la bokk kon man Babacar encore une fois daal ma seen fay parce que gis naa seen i ñaan i encouragement seen i jàppale ak lépp waaw yàlla na yàlla def jàmm defal leen ko yéen ñëpp daal di nuyu ñëpp yëglikaay bi di sunu lamb xëtam mu njëkk Bombardier Balla Gaye ñoo fa ne Bombardier boo xam ne tey daal waxtaan wu yaatu la sax yëglikaay bi ah jàpp na ne Balla du obstacle ci moom moom Bombardier lii la gis objectif ba mu am ne na du sax Balla gay 2 kese maanaam couronne roi des arènes bi la bombar ji jàpp ne da koo bëgg jël muy ñetteel yoon parce que jël na ko ñaar yoon muy lu kenn defagul bëgg koo ñetteel loolu nag la bëgg kon ne jàpp na ne kon du Balla lay waxaal moom kay jàpp na ne foofu day jaar jàll kon dem muy combat boo xam ne nag ku yebu xaar ci lu metti ndax li tax mooy ñaar lañ ñoo xam ne ku ne xam na ne ñoom ñaar ay gaynde lañu Bombardier du dellu ginnaaw ci làmb Balla gay 2 numéro 2 noonu la mel du reculer muy ñaar ñoo xam ne kenn du ci arrière kon li am mooy dañuy daje te bu ñu dajee cross dina jóg te bu cross jógee lépp mën a am ba ca des mooy bu ñu dajee itam taqaloo dina am te bu ñu bëree itam booye boo xaar falu ne muy combat boo xam ne daal macha allah neex na dana neex lool ba tey Bombardier ñëw na ci MMA ba nga xam ne daal jàpp na ne le meilleur la ci bëgg a doon ah loolu nag lañ ko ciy ñaanal parce que ay étranger la koy jonganteel yàlla na nga ci a def am a ndam lu seddu guy waaw ci sa combat MMA bu mu nga xam ne ca jëm waaye sa diggante ak Balla xam naa ne moom bés la boo xam ne suñu père Gaston moom tëgg na lu doy waar Balla ba tey état la xëy di waxal waaw te balaa lool sax Bombardier moo njëkk interpellé état bi ci li mu jàpp ne nañu ubbi làmb ji ngir nit ñi mën a bëree parce que bokk na ci tey la xam ne xale yaa ngi dugg ci gaale yooyu yooyu bokk na ci waaw defe naa nag ba am na ci ñoo xam ne tey ñi jaar ci gaale ay mbërë ngi ci ci gaal waaye nag doy na waar daal mbir yaa ngoom Balla Gaye 2 moom ba ñu ubbil suñu làmb ji maanaam daal suñu métier lañ ñu bëgg a xañ ne moom nangut kenn ku koy xañ métier wax na dëgg nit ki moom fa nga xam ne boo xëyee fa ngay dem xoslu ji am fa dara waaw buñ la ko tëjalee te utuñu la ah, wax nag waaw olof moo ko wax ku bëgg a dee wequ kon defe naa état du Sénégal ñu leen di waxaat nekk làmb ji dañoo bokk ci réew mi mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk am na ñoo xam ne ci la ñuy tedd mbëri di ci tedd essayant yi dégg teddu mbër saa yu ubbee bu saison um commencé seenum njaay ak seeni affaire yëpp dañ ko fay def di fa am weccet kon nañu xool ay solution waxuñu ne nag dañuy def li nga xam ne ni moom la docteur yi di aay waxuñu loolu de mais nañu xool ni alterner mbir yi entre médecin yaag waa sport baak ña nekk mbër yaag ñu xool ak amateur yi psychothérapeute yi ban solution lañ mën a jël pour que ñu ko parce que tamit il faut que ñu ut solution pour man loolu ba tey loolu la wagg Balla gay de xëy tey wax ba tey licence yi tamit yéeg ñëw nañ ceeg ña ko amoon te jotu ñu cee tëgg ak yooyu ñu leen di teggalee affaire grand bañik Eumeu Sène junior boo xam ne tamit taxaw na grand bañik boo xam ne ah ci combat bu nar a tar daal la jëm ba tey itam bu nu continuer ah beneen combat boo xam ne dafa taxaw tamit muy diggante Zal Bawal ak caatu yarax ka ko taxawal di Baba Diaw borom Thiam moom itam li koy wax di ko ñaanal yàlla parce tamit mu ngi yokk bu baax baax ci làmb ji moom Baba Diaw lees numéro 2 moom it gëj na am combat waaw war naa bëre duuba lees numéro 2 parce que nag 2007 ba 2017 ba tey bëreewul muy mbër moo xam ne defe naa itam wane na boppam te nga xam ne moom mooy lees numéro 2 ah vice wala boog li nga xam ne dañ ko fi annoncé woon bu yàggul record ñëw na ci tey muy maanaam daal fusion bi nga xam ne moom la ñu annoncé ci diggante écurie ak écurie Ndakaaru mais ni que daa mel ni boo amee ah dina mën na bañ a nekk pertement ci ñoom waaye daal ku yebu xaar ay conférence de presse ak yu mel ni ki noonu yooyu yëpp ñu ngi koy wax covid 19 bi tamit lit simple bi promoteurs yi koy tëgg est-ce que gars yi sóoraal nañ leen maanaam état bi ci la xam ne moom la war a dimbalee ña nga xam ne ñoom ñoo di waa làmb ji ah war nañ leen ci sóoraal parce que ñoom itam ay millions yu bëri la ñuy génne di ko teg di ay mise ay ma waxoon rek laay waxaat ci mbir yi lañ a baax a baax weekend bi tamit ku ne xam ne ne yëngu woon na ah ci làmb ji làmb ji yëngu na trop ci communication diggante Lac de Guiers de ak waa Guédiawaye fële liiru jaar ah ah waaw mu nekkoon loo xam ne daal soo woon na lool lool fan yi waaye itam ku ne xam ne ne Balla Gaye mu ngi doon andi fête anniversaire am ah ñu koy wax nag comme ni ñuy wax képp kuy fête anniversaire rek ko a a baax barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ah, na moom bés bi li tax mooy xaw moom mën nga koo am luye say baas sa rajo ñoom xulle ñoo seeni caméra waaye nit ñi nag moom la leen fay indi yow yaa koy jëflanteeg ñoom kon yàlla ni yàlla yàlla xiir ci ñuy jëflante jëflante yu baax ba bis yu mel su amee moo xam bànneex loola naqar ñëpp mën a taxaw loolu daal moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi xulle di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal na fi yàlla def jàmm corona bi ah deuxième vague la ñu wax yàlla na dem ba nekk zéro vague ba ñu gisatee gis bañatee gis dara waaye du mën a ñàkk faw mu nuyu ah 100 pour cent Babacar bi samay soppe la ñoom Grand Laye ñoom Jiga ñoom Cédric Marceline Ndour ñoom Baye Sall depuis Paris ay Pape Ndiaye ñoom ñëpp waaye tamit il faut ma nuyu ña ñoo di fans club bu Equivox bi ñoom tamit maa ngi leen di béggee Adama Ndiaye ñoom ñëpp ñoom ah, Awa Diop bu Touba bu Balla Gaye de maa ngi koy béggee di nuyu Asi Diagne ca Nouakchott bu moo bu Modou Xarañ Lo ah, tuuti yaay Sarr maa ngi koy béggee moom tamit bu nekk ca Espagne waaye actuellement mu ngi Sénégal Khadiros du ko fàtte waaye sëñ Fallou jox na ma bulu son fàllu ñaa ca Maroc maa ngi koy béggee sëñ fàllu yàlla na xéwali yokku barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyu ndongo Fall Youssou Ndoye tamit sama international ba ca Espagne ah ca Real Betis yónnee na ma mayoo club ba muy baskette Youssou tamit yàlla na sa jàmm yàgg xule di la ñaanal jàmm di ko ñaanal hélas di nuyu képp nga xam ne yaa ngi ñuy